fii duma fi gan bu ma ñëwee tey jii dem bay wut présidence de la république nekk candidat ci loolu sax moo tax ñun ci bi ñu teg dañ ci bind ne dañu war a am lu ñuy wax conseil supérieur de cultes pour permettre diine bi ñu am fu ñuy waxtaane am baat ci réew mi mu nekk organe consultatif léegi laa ci waxtaan ak sama benn wóllare mu ne ma 1968 jéemoon nañ ko def ba mu amoon yoo xam ne nii ci code de la famille nañ ko def woon am na ay points yoo xam ne dañ cee amoon dañ cee àndul woon mais ñu dajee bind mais amul réponse ma ne ko li ko indi mooy dafa amul organe bu ko ëmb ndax tey jii sax. boo bëggoon a def dara ngay laaj mën naa am li ngay passé pour temps pour laaj dana jël temps bu bari il faut que loolu mu am ndax ci réew yi nga xam ne nii laïcité dafa dëkk sax comme France gis naa fa ay conseil supérieur des cultes musulmans conseil supérieur ndangam kon di fait ñun dañoo dëkkee noo xam ne ñun dañoo jaxasoo benn la sénégalais euh, musulman ak chrétien mën nañ bokk benn néeg kenn ku ne def sa religion te du ngeen am problème te euh, li am solo ci loolu mooy euh, diine bi dana la jox fois nga xam ne lépp looy liggéey dañ ci sédd yàlla sunu borom bi ñaareel bi tamit da gëm liggéey te ñun ay liggéeykat lañ mun duñu politique liggéey lañ mas a def te liggéey moo ñu indi fii te tey bu dee prophète yëpp boo jëlee profet non ah menuisier la woon nga jël Moïse ah sàmm na nga jël Jésus charpentier la woon nga jël prophète Mohammed sàmm la woon commerçant la woon kon dafa mel ne eh, yàlla dafa wax ne liggéey leen liggéey bi ak jàng bi dafa ànd mais looloo tax nag ñu bëgg dugal suñu loxo ci ni ñuy toppatoo mbiru nit ñi te toppatoo mbir nit ñi kenn mënu ko def te dugguloo sa loxo ci politique loolu nag def nañ ci expérience ci li ñuy liggéey de sàkku ñaan ci yow euh, nga ñaanal ñun.